109 75. Notre site internet www.cefas-du-6sénégal.com explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits yi yëpp ñu ko Sénégal si anam yu sell naturel jus pour s'en goûter dormi collation ca bureau ba ngénte maanaam jus orange gir may leen ak tonus jus carasol, amna, bar, baax lool si yaram ak ay ferñeenteem yu am solo gingembre bimom, defa, dafa baax lool si góor ak ay bar baax lool itam si organisme Pouy bi nag day bar, tooy baax si yaram tayit yi leen jus bissap oh, oh dina yok sen kattan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito so excident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp emballage civilisé tour wóor ak jus vito da am choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 jërë ngeen jëf yéen journaliste yi leen di gërëm di leen sant ndax xam naa amu leen sax salaire te seen liggéey métti na ah donc li nga xam ne moom ma taxoon a jóg mooy déposer sama candidature merci bien déposé naa sama candidat jaay naa samay xar jaay ay naat yu ma yoroon ak ay kanaara def sama financement bi ma defee sama financement déposé candidature ñu laaj ma mille parrainage man mille cinq 12500 parrainage waa imbécile waaw waay dañ maa xeeb nee nañ ma xaalisu kanaara ak ah, xaalisu xaalisu nag du bokk ci parrainage bi. Oh, lu lolo. yoon ci loolu. waaw est-ce que sa parrainage mat na. mat na c'est douze mille cinq cent parrainage monsieur. Ah, ah, te nag te nag mm-hmm. li tax ma o a bokk. Mm-hmm. dëkk bi dafa jaxasoo. Mm-hmm. dëgg la agression bi bari na. crime bi bari Lolo dëgg la sàcc yi bari nañ. dëgg la te loolu maa ko fiy jëlee man député. nga nar a doxalee nii. mais damay dem constitution constitutionnelle déposer sama plainte au niveau de la préfecture. et l'enseignement supérieur. dama koy def. waaw daal bu ñu la déggee da nga bëgg a. doo bàyyi mu sedd daal du ma bàyyi mu sedd. yëngal leen yor parti yëngal gësam. yëngal gësam. loolu moom moo taxoon a jóg merci beaucoup. en français ah, en français que pouvez-nous dire de votre candidature. Mm-hmm. parle. parle parle. Major comme a pour parole en français non non dites le quoi. ah waxal français en français. comme député yow la bon ah. d'accord donc parallèlement. impérativement, moi j'ai choisi mon parti. Mm-hmm. J'ai déposé mon candidature. Mm-hmm j'ai vendu mes canards, les mêmes bam, même vous même naki, et je les déposé, au moins Tout de cela, moi, ma ñak sama nday àdduna lépp du xeer. waaw yow àdduna lépp du xeer te responsable. kilifa nga ci réew mi bàyyil foo jotee ñu jël xeer. xam naa leen. bàyyil foo waxee nga jël xeer. lu fi def ba ci lan lu ngeen fi def. nu lay waxee te nga yor lii. tegal say xeer. waaw yow tegal xeer bëgg ngay xeer trop. danga ma ne maçon fu ñu la fekk ngay gàddu ay garaawaay. leen dinaa la ko xamal xam naa ne yaa jaar ci pour ñu invalider sama candidature. te lu mënul nekk. à l'Assemblée nationale. Niass dama li sama parrainage la mat na seuk jar na ci souf ñu naa mën a matal nak dug na fi genn fi xol par la force damay don député fi ci rew yow yow nopi gis nga yow say papier mat sama papier mat man dama bëggoon. waaw nga tek lepp ci souf waaw ku ñoo bokk koñ. waaw te man candidat la. waaw ñu and liggéey. ey way ndaw Samba. yow da nga am buzz da nga am buzz bamay and ak oh. yow nan damay campagne. man ala kuli ànd dinaa doon député.

au niveau de la république au procureur de la république yéen a ngi may tooñ yéen a ngi may tooñ te su ma yëngoo dëkk bi yëngu voilà foofu laa yem ak yow say weex dañ oo ñëpp ñëw ay yow allez vas-y ñu dem nga ne nga ne ay yow yow man nga kilifa bi toll yow foo waxee wiltaay rek gëdd ay dem leen maa jo jëm dara mar dara mar dara mar nañ dem dafa dafa bu lo xam nañ dem nee na xeer fii lañ ko gisee. député député bu soog a gisee rek. Eh, yow booy sànni ni daanu.